الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل وواضعه mbokki asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nu ngi nuyu njaboote alquranul karim yëpp fépp foo xamante ne ab jaam dan na topp sunu jotaay bi di asalafu ma alquran waaye ñu amee ko ci kër gii di la maison du coran tey nag ñu koy defee fii nga xam ne mooy sunu dëkk mooy mbuur ñu ngi nuyu képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo mbuur insha allahu taala ndax asalafu ma alquran mag ñi nañu tunde ak alquranul karim dina dem fu nek insha allah taala fu ñu dem rek dañu fa tok chambar alquranul karim tegaat tere borom bi subhanahu wa taala xol mag ñi ba nan lañu daan tunde ak alquranul karim jamono bu nek waye waxtu bu nek waye ak bërëb bu nek fi ñu tollu nga xamne aduna wër ngal kep ñëpp jaxle nanu ngir nattu bi nga xamantene mom la yàlla tek jaam yi muy bi nga xamantene mom modi virus corona nga xamantene ñi amon doole ci aduna yëpp ñëpp jaxle nañu alkullu nqaadu wan al kullu tahayyaru ñëpp jaxle nañu ñëpp tit nañu benn way rek mom mo fi am ki nga xamne mom modi al musaytir ki nga xamne modi al musakhir yàlla mi nga xamne mom moy tagat yàlla mi nga xamne mom mo meuna teyel muy bur bi subhanahu wa taala mom rek mom mo fi delu way bi nga xamantene mom mo ñu meuna dimbali mom rek mo meuna musal julit yi mom rek mo meuna musal jami waaye yàlla buur bi subhanahu wa taala dafa jaadu ñu dellu ci ñoom yàlla buur bi subhanahu wa taala na ñun ñëpp ñu daal di dellu ci moom moom yàlla buur bi jalla wa ala dafay jaadu mbokk yi tey jii fii ñu toll ci wàllu feebar ñu xool lan la ci alquranul karim wax ñu xool alquran nan lañ koy wettalikoo suñu tollee fii dañu dellu ci benn jëmm jëmm joo xamante ne mooy madrabul mathal fi sabr mooy ki nga xamante ne ci wàllu muñ saa yu ñu ko tuddee xel yëpp daal di dellu ci moom yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di ñu koy jàngal alquranul karim daal di tudd turam ba nga xam ne fu ñu waxee muñ xel yëpp daal di dem ci moom ñu war a jàngee ci moom la nga xamante ne moom moo di ñu mooy kan mooy nabiyillahi ayub alayhi salaam yonent yàlla ayub yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala yokku jàmmam nga xam ne tey jii ci wàllu feebar kenn ci ñun yàlla nattoogu la febar bo xamantene tol na ni bosam yàggeewul ni bosam waye mom yonte yàlla ayub mu delu way ci walu muñ yàlla buur bi subhanahu wa taala dafa wax ni nene ayub bi nga xamantene mom la yàlla nattu won mom mu daal tal ay loxom mu ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala dañ ci ñëw ci suratul anbiya aya 83 insha allah taala dañ ko yaatal ci jotay yeb bu soobee rabbi jalla wa ala yàlla ayub ba mu amee juróom-ñaar fukki atu yàlla yàlla daal di koy teg ab feebar feebar bu yàgg feebar bu métti feebar boo xam ne dafa laal jëmmam yépp ba ñaari cër rek ñoo wéroon ci moom bu ci yàlla Ayyub mu nekk gémmiñ ga waaye ak xol bi ca gémmiñ ga mu cay tuddee yàlla buur bi subhanahu wa taala waaye xolam mu cay gëm borom bi subhanahu wa taala ñaari cër yi rek la dese woon moom Ayyub alayhi salaam kom ni nga xamne non la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ci xadisu anas bun malik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne ayub yàlla nattu nako febar bo xamne fukki at ak juróom-ñett 18 sana fukki at ak juróom-ñett yonent yàlla ayub dal di koy tëdd febar yaramam amul len lu ci wér lu dul genn ngi moy làmmiñ gi ak xolam ba febar bi amé ñetti at ba febar bi amé ay fan am ay weer jabar ne ko ya ayub udu rabbak ñaanal yàlla buur bi subhanahu wa taala li yakshif anka hada ndax yàlla daal di lay teggil as yu ayub daal di xool soxnaam ko yàlla buur bi subhanahu wa taala dundal na ma juróom-ñaar fukki at yoo xamante ne dama koo wér yàlla nattooguma lu dul ay at yu néew kon jaadu na ma muñal yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xamante ne dama koy di su ma dundaatee ba juróom-ñaar fukki atu yàlla yoo xam ne dama koo di ma door a am droit ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala mbokk yi ayub alayhi salaam ca jamonoom bokkoon na ca ña nga xam ne ñoo ca ëppoon alal ayub am ay tool yu dul jeex ayub alayhi salaam njabootam ay soxnaam ayub alayhi salaam yàlla di commencé koo nattu alalam daal di dem ba jeex takk yàlla daal di nangu lépp ayub alayhi salaam kon yow mi nga xam ne sa alal da ngaa xëy yàlla nattu la nga ñàkk sa alal yëpp danu ko sàcc wala dafa lakk ak lu ca mën ci xew seedal ayub alayhi salam nga xam ne yàlla nattoo woon na ko lu mel noonu ñu ne déetawaay njabootam ay doomam di dee benn par benn ba ñoom ñëpp ñu daal di jeex takk ay doomam yëpp daal di dee ayub alayhi salam muy muñal yàlla buur bi subhanahu wa taala ayub alayhi salam mu daal di tàllal ay loxoom mu ne alhamdulaka ya rabbal arbab alhamdulaka ya rabbal arbab maa ngi lay sant yow yàlla mi nga xam ne yaay buuru ñëpp yàlla ne tekk ayub ne ko yow yàlla buur bi subhanahu wa taala joxoon nga ma alal judul jeex nangu nga ko tey joxoon nga ma njaboot jël nga leen tey joxoon nga ma wér jël nga wér googee tey parce que tey jii sama wér sama njaboot sama alal lépp lu ma amoon bu ci nekk daan na dugg ci sama xol waaye tey jii nga daal di rocc lépp sama xol tey ji yow yàlla buur bi subhanahu wa taala lenn moo ci des kenn moo ci des xol beeg xel beeg lépp dafa dellu ci yow yàlla buur bi subhanahu wa كن تلاتوما تلاتوما كن لن تلاتوما تلاتوما لن يو يال رك يو يال يو لا دسي لو أن عدوي إبليس عرف ما صنعت لي لحسدني مونك يو يال بولي سبحانه وتعالى كي خا خني موي سما نون دي نونو جام ييب إبليس سو يو اخيوال ديما ديفال والله دينا ما سخري دينا ما أنياني دينا ما ني فبلغ ذلك من الإبليس شرا وغضبا ومنكرا iblis nag loolee nekkoon wax ju ko métti lool ndax mu ngi doon xaar ayuba alayhi salaam ni ko yàlla nattoo mu daal di saalit waaye ayub ne yow yàlla buur bi subhanahu wa taala lii nga ma defal iblis su xamoon xéewal gii dina ma ko sax añaane dina ma ko sax soxoree ayub alayhi salaam comme ni ko ibnu kathir nettalee tey damay jël an tariq sa ufassir an tariqi ibni kathir wa ayuba id naada rabbahu أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يلا بورب سبحانه وتعالى ممي القرآن أفضل الكلام خير الكلام أحلى الكلام القرآن يلا دين يتلي من وأيوب بقى حمد دين فنيان يعني يلا بورب سبحانه وتعالى منيان يلا يعني منك يا رب يو يلا إني مسني الضر من يلا أبلور دلنا سمكو wa anta arhamur rahimin te yàlla yaa ëpp ñëpp yërmande yow yàlla buur bi subhanahu wa taala ibnu kathir dafay nettali ci téeréem kon maa ngi nuyu soppey ibnu kathir yëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay taalibeem ñi nga xam ne ñoom ñooy topp téere tafsir boobee barakallahu lakum fi kutubi tafasir tatabba'uha la tatruku minha kitaba tatabba'uha fa kulluha kutubun sunnifat wa ullifat fi kitabillahi subhanahu wa taala لا تتركوا صفحة أو كلمة منها تقلبوها حاولوا أن تعرفوها كتب تفاسير ابن ين كتب بقي نختب القرآن الكريم لا ابن كثير نين أيوب دفع أمون ياري خريط يو خمانتين أي خريط أم لنوان يو أمون على اللون نكون أي مبكم نكون أي لبام إبليس دادي دمتي نيوم بني بس من لنا خمجين سين خريط بدي أيوب يالا دفكو نتو ay at a ngi nii dañ koo génnee sa dëkk ba ay yóbbu dañ ko génne woon dëkk ba tey jii ki nga xamante ne da ngaa feebar ba ñu mettre la quarantaine nga xam ne ber bi ñu la ber fukki fan ak ñeent rek la yow mi nga xamante ne dañ lay xool ndax da nga am corona wallahi la tahzan bul tiit yonent bi su fi nekkoon dina la wax ne bul tiit ñenn ci yéen ñu ngi leen dugal ci ay oto ay hôpital yoo xam ne yu sedd ñu leen di toppatoo ñëpp di leen xool am ci yéen ñoo xam ne ñu ngi ci hôtel yi sax ñu jël leen en charge di leen xool du ngeen fay dara waaye ay yuub dañ koo génne woon ca frontière dëkk ba dañ koo génne woon fa nga xamante ne Baye Maysa du fa nekk nga xam ne kenn du fa nekk benn jëmm moo ko fa daan fekk muy soxnaam dañ ci ñëw leeral ci bu baax a baax ci jotaay yi di ñëw insha allahu taala mooy wane ne képp ko am soxna su baax daanaka am nga lépp ñaar jëmm yooye Iblis daal leen ne seen xarit seen walare di Ayyub alayhi salaam yàlla teg na ko nattu ba moom mu nga ci àll ba dem leen ngeen seeti ko waaye su ngeen di dem yóbbaale leen ci sàngara bi sàngara bi su ko naanee rek moom dina wér allahu akbar audu billahi min asheytani rajim kon mbokk yi jàngee leen ci saa yoo wéradee saa yu la dattu dale iblis da ciy profitoo muy fexe ba di la naan loo wala mu day lekk loo lu xaraam iblis na ñaari mbokk yooyu dem leen ci ayub su ngeen demee ngeen nuyu ko waaye su ngeen paree ngeen ne ko su naanee ci sàngara bi rek moom dina parce que ñoom xamuñu ne Iblis mooy wax ak ñoom daf leen bëgg naax ñoom ñu daal di dem ba ñu demee parce que ayub soo ko juboon dañu ne xet mi sax ci boppam mooy tax doo ko mën a jege waaye doon ci lenn ci borom xam-xam yi ñoom teggi nañu loolu ndax nee na ay anbiya yonent yàlla yi am na feebar yoo xam ne yàlla du leen ko teg waaye lii yàlla daf koo teg ayub pour mën a jàngal jaam yépp ci moom ba ñu demee ñu daal di seet ayub ba pare xam ngeen lan ca teg ñu nekk ayub لو علم الله لأيوب خيرا ما ابتلاه كل هذه السنين نيو أيوب سو فيكون نيت كو با اخلا يالا دوكو تك نتبو ياغ بي تي بنن روايه با نيو دون واخ ايوب كنت تظهر شيئا وتبطن غيره نيو نكو يو ايوب لي نيو دان وان غاي واراتي دي نيو وني ينت يالا غا دي نيو وني داغا باخ كون يو مي من نا ام دافا ام بكار بو دون لاكو ديكو ديف موتاخ يالا تك لا نتوي moo tax yàlla teg la nattu yi mbokk yi ragal leen yàlla bàyyi leen gis koo xam ne yàlla daf koo nattu ngeen di dem ne dafa baa dafa bon ngeen di dem ne yàlla ko fay ngeen di dem ne yàlla koy mbugal ittaqullaha fi ibadihi ittaqullaha fi ibadihi amsiku alsinatakum tée leen seen làmmiñ yi ci ay jaamam nit ki yàlla teg ko nattu rek dafa silmaxa dafa feebar dafa gaana wala dafa lafañ ak lu ko mënti dal dafa amul alal bu mu tax nga xeeb ko bu mu tax nga tuumal ko bu mu tax nga gaañ xolam xol dafa sori li yàlla nattu ayub yëpp daf koo bàyyee xolam ñu ne ayub dafa am loo doon làq loo xamante ni ñi xamuñu ko ci yow moo tax yàlla teg la natt wi ba loolu amee ayub ñaanagul pour yàlla daal di koy saafara dafa yëkkati ay loxoom mu ne ko allahumma ya rabb yow yàlla buur bi subhanahu wa taala yow yàlla su fekkee ne yow leer na la ne man mosuma tëdd ci sama kawlal fekk damaa suur te xam naa biiru benn jaam boo xam ne dafa xiif lu dul ne dem naa ci moom jox ko la muy lekk ba suur su fekkee ne yàlla loolu dëgg la fa saddiq nii fa saddiqa min assamaa ci saa si am benn baat boo xamante ne mu ngi koy dëggal ci kaw asamaan saddaqta ya ayub saddaqta yaa ayub am baat boo xam ne mu ngi dëggal ayub ca kaw asamaanu juróom-ñaar ñoom ñaari jaam yooyu di ko dégg ayub yamu ca mu ne ko yow yàlla buur bi subhanahu wa taala su fekkee ne xam nga ne mosuma sol ab yére te xam naa benn jëmm joo xam ne amul lu muy sol fa saddiq nii dëggal ma yow yàlla buur bi subhanahu wa taala ñoom ñu daal di dégg ab baat boo xam ne mu ngay dëggal ayub ca kaw juróom-ñaari asamaan hakada sunnatullahi ma awliyaihi maa salihin al anbiya nii la yàlla di nattoo ay jaamam mbokk yi bi loolu amee ñoom ñaar ñu daal di ñëw andi sàngara bi ñu ne ko yow Ayuub am na góor gu baax bu ñëw ci ñun nee ne soo naanee ci sàngara bii yàlla daal di lay saafara génnee la ci li nga xam ne mooy natt wi nga nekk lan la leen Ayuub toog euh, tontu mu ne la qad jaakum al gis nga yonent yu yàgg ya yonent yu njëkk ya Iblis xabiis lañ ko daan tuddee mun leen seytaani bu bon bi iblis mu bon bi moo ñëw ci yéen mu ne leen su ma naanee sàngara bi yàlla dina ma saafara fa kalaamukuma wa kullukuma lépp lu ngeen mën a am xaraamun alayya man araamal naa ko sama bopp dem leen seen yoon ñu daal di dem mbokk yi kon insha allahu taala foofu la ñuy taxawlu tey jii ci seen jotaay asalafu ma alquran magi démb ak alquranul karim mbokk yi alquran doy nañu wéttal alquran doy nañu lu màgg alquran doy nañu lu re yàlla ni lay doxale da fay nattu ay jaamam nit ki sa gëm yàlla numu tollu ci borom bi subhanahu wa taala ay nattoom di gën reey yalla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da fay wax ci hadith ba legi mang ci ibnu kathir ñi top tir ibnu kathir dinañ gis hadith bi yonent bi nee ne ashaddu nnaasi balaan al anbiya thumma salihun thumma al amthalu fal amthal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ñi gën reey rëy ab ñi nga xamne moy mooy nattu ñi yàlla di gën a nattu ci ay jaamam moy yenenti yonent yi natt yu rëy la leen yàlla di teg summa saalihoon ci ginnaaw si ñu baax ñi mbokk bi su fekkee ku baax nga xaaral bés a ngi ñëw yàlla dina la nattu wallahi bàyyi leen gis ku yàlla nattu ngeen di ko tuumal ngeen di ko jiiñ lu bon wa fi riwayatin uxra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yubtala almaru ala qadri diinihi nit ki diineem na mu toll nattu bi ko yàlla di teg noonee lay toll kon nit ki xoolal sa diine fa mu toll xoolal sa gëm yàlla fa mu toll na la leer ne bés a ngi ñëw yàlla dina la teg natt bu toll noonu kon képp koo xamante ne feebar bi dal na la wala mu dal sa mbokk ngal la bu ko tuumal ngal la bu ko wax lu ñaaw muñ leen dellu ci yàlla buur bi subhanahu wa taala ñaan leen yàlla ngeen di yàlla buur bi subhanahu wa taala lii de dal nañu wa anta arhamu rahimin allahumma fa anta shaafi yàlla moom mooy saafara yàlla daal di leen saafara mbokk yi kon tey jii loolu moom mooy suñu jotaay asalafu ma alquran magi démb ak alquranul karim ñu ngeen koy defee wala ngeen ko teewloo ci seen kër gi nga xam ne alquranul karim rek ko tax a jóg muy la maison du Coran au Sénégal waaye tey ji comme ni ñu leen ko waxee ñu ngi ko defee fii ci dëkk bi fii ci Mbour di nuyu waa Mbour yëpp insha allahu taala allahuma ma kaana min sawabin fa min arrahman wa ma kaana min xatain fa min nuqsaan salla ilahu ala annabiyi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimun assalaamu aleykum